honorable député Moussa Sané ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen ngi leen di nuyu man tamit di leen fay bu baax a baax. ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy déclaration bi nga xam ne président def na ko gannaaw bi conseil constitutionnel euh, joxe résultat définitif du scrutin wu 24 février bi. mu def euh, benn déclaration ca ca palais de la république invité ji nga xam ne ñoom ñoo fare ci kuje gi ak toutes les force vives de la nation comme ni ñu koy waxee dialogue loolu ban gis-gis nga ci am. waaw dama ko yàgg ni le président Macky Sall c'est le président bi dàq dialogué ci Sénégal. loolu foo ko teg. fi ma ko teg mooy regarder processus su dialogue bi président dafa dem ba inscrire une journée du dialogue. respecté wu ko. non non non ñoom ñoo ko respecté wul mais président. ci naka. non président mi ngi woote tout le temps mi ngi woote xam nga ki dem ba ba taxaw ne par exemple chaque le 28 avril dañuy dem à la table du dialogue. nañ dem toog waxtaan génne problème mu Sénégal yëpp lépp lu metti nit foofu nga ko mën a ñëw tege mais mënoo taxaw fële rek di kaas di sànni xeer télé rajo yi jël média yi loolu ñun ñoo leen ko dàq mais doo leen ñu ci gis parce que ñun pour ñun dañoo jàpp que ni réew mi dafa am lu mu soxla tey président Macky Sall li mu nekk di woote si dialogue ñaata yoon mais day woote dialogue nga lànk na doo ñëw après moom day dérouler. mais est-ce que loolu yaakaaroon ne crise de confiance moo ko indi digganteem ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fari ci kujje parce que te de confiance boobu ñu bëri ci moom lañ ko féetale li indi loolu parce que gis nañ ne laata scrutin du 24 février bi am na benn jàkkaarloo boo xam ne def na ko biir par exemple mu taxaw carrément loolu duma ko def duma ko def ba gagné wëlbati ko di woote dialogue est-ce tamit dialogue boobu gëm na mais dialogue boobu cela ne veut pas dire que ni ministre de l'intérieur dañ ko fiy jëlee loolu aussi il faut que mu leer cest à président li mu wax il faut que nit ñi aussi di déglu li muy wax dañ ko laax ne ko mais opposition bi dañ il faut boo jëleewul fii kii du ñu dem du ñu ànd si jaloog bi mu ne leen maa lànk te loolu ñu ngi koy lànk ba tëdd si suuf nag mënuñu toog jëluñu un étranger pour mu nekk le ministre de l'intérieur il fut un temps mais c'est des français je vais citer ces noms là ah vous m'excusez Mais c'était des étrangers qui, qui, qui, dirigeaient le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est des Sénégalais de chouche. La ñu jël teg ko te pourtant ñoom ñoo ñu di wax noonu fekkee nañu ba fa tubaab ba nekkee ministre de l'Intérieur boobu ñu ngi am suñu indépendance boobu ñun ñu ngi jàng école nekk lycée yàggul dara mais tey bu ñu toogee ba ay sénégalais ñu ne la Njaay la sant moo nekk ministre de l'Intérieur nga ne non non parce que dafa am fu mu far fii am na ku farul. amul ku farul ñaari ginaar sa bu ñuy xeex di nga am booy àndal waxuma la nag nga nekk ci réew mi mais fii ay société civile ak yooyu yëpp xoolal ay def ay bla bla la rek ay wax la rek mais du lu ñu gëm. préfet avant. Ah non je ne pense pas que ni c'est le médecin après la mort le président dafa woote woon dialogue avant ñu bañ. lan moo ko yàq. ñoom. ñoom ñan ñoom ñan <laughs> ñoom opposition bi ñoom opposition bi xam nañu ni dañuy perte xam nañ ko. xam nga koo jëlee ku mel ni comme sama grand Decroix nga xam ni amul benn militant doo dox si réew mi ba gis ni ku la wax ne la man Decroix laa àndal doo dox si réew mi ba gis ni kii mu ne la Cheikh Bamba Dièye laa àndal doo dox si réew mi géejawaay daal ngay gis ay mbër yoo xam ni gàkku la ñu àndal te ñooñu bàyyi nañ ko donc ñooñu boo toogee tey bëggu téye réew mi parce que yow ay benn nit nga boo xamante ni bëggu may sa bopp loo xamante ni yow yaa ëpp ñu valeur te tey Sénégal dafa soxla ay nit ñu bees maanaam ay nit ay des hommes de qualité il y en a en ampli finir il y a trop de talent au Sénégal il faut que nag ñu gas ci ñooñu génne leen mettre leen au devant de la scène ñooñu tamit doxal ñu gis ni Sénégal dina soppeeku kon donc man foofu laay woo gaay et président woo na leen pour ñu dem dialogue mais del xool dañuy bañ dañuy bañ parce que. parce que amuñu confiance ci yi non parce que ñoom amuñu confiance ci seen bopp. ils se croient même pas en eux-mêmes ñoom gëmuñu seen bopp donc buñ la woowee dialogue da ngay bañ. parce que xam nga ni boo toogee si kanamu président Macky amoo dara loo fiy teg dara yow fichier nga wax jox nañ la fichier bi fichier bi jox nañ leen ko le code électoral dit que ni fichier bi 15 jours avant le scrutin lañ koy jox les candidats mais fii la ñu toog di yuuxu fichier bi fichier bi yow pendant des mois ñu ngi yuuxu fichier bi fichier bi fichier bi la ko jox parce que tu n'es pas candidat dañ la wax nga dem parrainer mënoo sax am un pour centage un pour cent ah nga bëgg ñu jox la fichier bi fichier bi c'est pas donné à n'importe qui le fichier on le donne au candidat validé c'est ça le loolu il faut mu leer c'est-à-dire yéen ñi nga xam ne yéen ay journalistes yi yéen war a àtte débat bi yéen tey war ngeen mën a organiser débat bi président Macky Sall forcé ko mu ñëw toog opposition bi ngeen forcé ko mu ñëw toog et puis ngeen teg affaire bi bu boobaa yéen di ngeen àtte di ngeen wax ne eh yéen nag. neexul ba neexul mais ñam ni ngeen di bëgg sénégalais yi duñu atte ñan vous devrez être les les témoins les les les les les les arbitres. mais mais mais journaliste justement ñu ñu ngi ci role boobu parce que la amoon ca palais de la république ba tax Macky xëy na waxee xol sax wax ci ministre de l' bi rôle boobu la journaliste yi di def. Macky musta waxee xol. en kañ c'est-à-dire man du ma ko def duma ko def du ma ko def insister ci loolu. mais li mu bëgg li mu gëm la wax c'est-à-dire xam nga ñun li ñu président xamal xam nga man maa ngi waxee ak arñi yuuxu mais du dama damay wax li nga xam ne moo nekk sama biir xol loolu laay wax pour Sénégal yëpp di ma déglu kon donc par respect au Sénégalais Macky Sall mënul toog di mer ci kanamu Sénégalais yi non il n'est pas du genre dafa nekk nag koo xam ne dëgg rek lay teg Macky lu mu teg rek intérêt Sénégal kon donc ni ba ci parrainage bi ba ci parrainage bi bien sûr parrainage bi mais imagine nga tey keroog bi ñu ne dañuy déposer candidature yi il y avait 107 candidats yow 107 candidats bu ñu leen ci benn bureau 107 bulletins mais kan mooy ñaata nit ñooy voté kon kon du ñu mat sa 500 ñuy voté mais il faut ñu teg ay baromètres yoo xamante ni ñu teg ay barrières yoo xam ni il faut traverser ces obstacles la pour être candidat loolu rek la Macky Sall def moo waral ñu teg le parrainage et parrainage bi ñu ko tegee gis nañ ni vraiment ça dafa dafa clarifier le débat les candidats yi jaroon na nekk candidat ñëw nañu nekk candidat te ñeneen yi lenn rek lañ si doon jublu mooy nekk candidat après ñu bind ko si sa il a été candidat telle année pour les élections présidentielles dem di utiliser loolu sur les bailleurs de fonds di di di di di encaisser ñi ñi ay milliards yoo xam ni si turu Sénégal lañ ko amee il faut que ces gens là arrêtent donc loolu la ñu xam moo tax ñu teg parrainage bi moo tax xoolal bi ñu tegee parrainage bi yuuxu nañu fii xoolal keroog la loi sur le parrainage bi ñu koy voté à l'Assemblée nationale comment ça fait du bruit et pourtant bi ñu nee candidat yi tey la suba la ñuy déposé ñoom ñoo fa xolal ni ñu doon buuxante il a fallu que ay Malick Gakou ñëw di agressé Mimi Touré parce que elle était première sur la liste yooyu daf ko jar. ñëw ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, débat bi posé actuellement di défrayer la chronique mooy le troisième mandat ou bien un probable troisième mandat du président de la République Macky Sall loolu est-ce que amoo leen ci tiitaange. tiituñu si dara. tiituñu si ndax da koy def. deux mandats successifs la constitution bi wax waxul un et un mandat de cinq ans les constitutionnalistes sont restés ici devant les télé ne Macky Sall am na droit def troisième mandat loolu du ñun ñoo ko wax de Ismaïla Madior il n'est pas le seul constitutionnaliste dans ce pays fii constitutionnaliste yëpp du am kenn kuy bañ lool. yow da nga jàpp ne Macky dafa war am troisième mandat. man na ko bu ko bëggee bu ko bëggee. te ànd nga ci. mais pourquoi pas. man aw si benn ba lu may bañaa parce que constitution bi moo wax constitution bi waxee du waxul Samba Demba c'est-à-dire il faut. mais constitution bi tamit waxul ne Macky dafa war am troisième mandat de. constitution bi li mu wax waxul ni Macky waxul sàmba tuddul tur constitution bi la constitution parle aux Sénégalais la constitution dit que le président a droit à deux mandats successifs de cinq ans loolu nag xanaa du ay anglais tubaab la dafa ne constitution bi dafa ne président bu Sénégal. am na droit falu si juróomi at teguwaat juróomi at waxul ñaar ñaari at waxul ñetti at waxul juróom-ñeenti at juróomi at la wax yu tegaloo. waaw kon bu ñu déggee li nga wax bu baax da nga jàpp ni Macky à partir du 2 avril la war a commencer premier mandat. mais bien sûr loolu moo am. war a dawal ba kañ. mais loolu moom yàlla rek a xam. 2029 <laughs> xoolal xam nga gars yi dañuy ragal di wax or que waruñu ragal. lu ñu war a def wax ne yi dafa war a présenté waat en 2024. am na droit Macky Macky mën na bañ nee na man bugguma am na droit loolu kenn du ko ko bañal kenn du ko ko bañal mais constitution bi li mu wax et man tama jàpp que ni débat boobu war nañ ko clore dès l'instant que président taxaw na nee ay wax la yoo xam ni c'est des manipulateurs qui sont en train de far sax moom jàpp na ni. moom ci bopp mais moom ci boppam dafa yàgg a wax renier parole am. non kañ. sept euh, mandat yi mu njëkkoon wax sept ans yi sept ans à non bëri na fi loolu duñ fi nekk di ko lim honorable musul rëññee parolam sept sept sept à cinq ans bi sept à cinq ans bi mu def ma falee dina wàññi mandat bi nga xam ni sept ans lay doon def ko cinq ans loolu Macky Sall wax mais mais defu ko si tollooyee wu na conseil constitutionnel parce que Sénégal aussi dafa am ay charte yu ko lal dafa adressé conseil constitutionnel ne leen man kat juróom-ñaari at yi ñu ma fal damaa bëgg wàññi juróom-ñaari at yi daf ko juróomi at mais conseil constitutionnel mooy valider foofu mooy instance supérieur bi war a wax waaw wala déet kooku ne ko amuloo droit wàññi mandat bi mandat bi sept ans lay durer mais kooku Macky Sall fan la renier parole mais conseil constitutionnel honorable avis lay joxe mais du décision li ma leer ba leer bu forcé woon def ko ngeen ne woy dafa dafa dafa torpiller la justice li mu def ci rakam nag loolu du renier parole mais mais rakam lan la rakam sénégalais la Macky Sall. moo ko waxoon parole am la par le président honorable waaw dama ne Sall c'est le seul Macky Sall bu ko neexoon tey mu def le premier ministre kenn mënu si dara. man maanaam moom daal lu mu def rek jaadu na. non non non non cest lu mu def rek. parce que honorable li ngay wax loolu lay wund de lu mu def rek jaadu na. déedéet déedéet loolu dama ne Sall lu mu def si intérêt Sénégal rek la koy teg du ko teg si teeyu bakkanam man loolu laa gëm maintenant yow mun nga gëm leneen keneen mun na gëm leneen mais man li ma gëm. mooy Macky Sall à chaque fois que ma gis mu teg dara intérêt Sénégal laa ciy gis ci ginnaaw kon man looloo tax ma topp ko. kon daal yéen a ngi waajal troisième mandat. bon troisième mandat comme ni ma ko waxee man Moussa Sané député à l' nationale dama ne suñu toppee ci constitution la mu wax Macky Sall am na droit taxaw troisième mandat maintenant moom Macky Sall nee ne loolu du ko si fekk moom bii la jàpp ni mooy deuxième mandat am kon nañ jàpp ni bii mooy deuxième mandat. man dama xamul la moo tax ngeen bugg ci gas noonu xam nga. <laughs> honorable mooy deuxième mandat nañu nangu ni bii mooy deuxième mandat bu pare après dinañu xool keneen ñun kan mooy porter suñu komba mu continuer la komba alors tàggatoo bi lan lay doon. waaw tàggatoo bi mooy li muy doon mooy vraiment di leen félicité waat yéen waa Sénégal 7 wax ni vraiment ñu ngi gis seen liggéey te loolu surtout tur bi ngeen xam ni moom ngeen tuddee seen bopp Sénégal set nekk na loo xam ni. man en tout cas lu ma frappé la lu ma neex la ah en tant que jeune nekk sénégalais bëgg nag ñu def promotion jeunesse sénégalaise promotion Sénégal aussi maa ngi leen di féliciter mais également di wax l'opposition nañu dem wuy ji à la table de négociation. la ñu nekk di wax ci biti nañu ñëw toog ak Macky Sall am fit am fulla ak fayda ñëw toog jàkkaarloo ak moom. wax ko li leen metti parce que li leen metti foofu la ñu mën a régler problème yooyu bu ñu ñëwee nag ba nga xam ni jubawuñu mais bu ñu génnee bu boobaa dinañu xoolaat suñu boppu ñun en tout cas ñun gëm naa ni président Macky Sall il fera tout ce qui est possible pour ànd ak ñoom dans la même direction mais la direction de la vérité parce que nag ñun du ñu nekk fii di di tourner de gauche à droite dañ leen di ànd ak ñoom parce que tey président Macky Sall la ñu fal cinquante 58 pour cent des sénégalais ont dit huit à la politique du président Macky Sall tey fu mu ne table de négociation sax waratuloon am mais Macky Sall ak yaatuwaayam mu ne non bàyyi leen ma tàllal leen loxo parce que nag am na quarante deux pour cent des sénégalais qui ont dit no mais ñooñu noonu soxla nañu pour xam lan la ñu wax te ñooñu man jàpp naa ni war kon ñoom ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñoo représenté ñooñu war nañu mën a ñëw toog waxtaan ak président pour ñu trouver ay consensus trouver ay place de convergence yoo xam ni pour Sénégal parce que nag mu noo am xam-xam ba pare naan duma ko teg pour Sénégal parce que man nit kii moom ma neexul te nit kooku Sénégalais yi nee nañu moom moo leen neex il faut que les gens soient démocrates bu ñu nit ñi falee nañu topp ci kii yu fal parce que kooku tey moom rek moo am droit ñoom ñooñu di bañ sax moom moo am droit fal leen moom moo am droit fal kuy général képp kuy post bu nekk Sénégal benn nit moo am droit pour fal ko muy le président Macky Sall donc nañu ñëw à la table de négociation waxtaan parce que waxtaanu réew mi la moo soxla réew mi moo soxla ñoom nañu fàtte seen bopp nañu toogee defuñu benn recours parce que xam nañ ni affaire yi dafa leer <laughs> xam nga xam naa coup bi dal na dalaay boo xamante ni mënuñu woon xam nga gëlëm nañu xamatuñu fu ñu taxaw il fallait que ñu accepter verdict bi noonu ñu ko accepter ba tey ñun tardewul pour ñun nañu toog woo président Macky Sall wax ko félicitation dinañu ñëw si table de négociation ñëw waxtaan bu ñëwee bu fekkee amuñu lu ñu lu satisfaction mais bu ñu génnee ñu wax ko mais loolu mooy yëfu nit mais mënoo toog du ma dem du ma dem parce que yow xam nga ni fa nga jëm boo fa duggee gongo ngay wax